seen allié bi gën ci biir néegu sëy yi volcano dina tax ngeen mën a yëg seen bopp te bu ngeen ko yëgee dégg jàmm dana leen jox sañ-sañ ak kàttan ca lal ba dana tax bëgg-bëgg kay yaay bañ gaaw a yëg sa bopp gi volcano da koy xeex waaye tam ñi nga xam ne ñoo am jafe-jafey jur volcano day mooy seen saafara da ngeen di yëngal bouteille bi jël benn dose benn waxtu laataa ngeen di séq te bu ngeen ko ñemee xam ni Angleterre du pomme de terre boisson 100 pour cent naturel la amul additif amul colorant amul effet secondaire te mënta wàññi dara seen wërgu yaram ay chimiste ñoo ko saytu liggéey ko ci ci laboratoire ma ne essayé leen volcano boisson aphrodisiaque la boo xam ne nan dégg jàmm laa ko dippee ngir nga mën def traitement boo xam ne mukk jafe-jafe ne nekk kay da nga koy dégg rek ñeenti bouteille ngay daal di jënd te boo ko jëndee takkali ko jafe yi nguur a fa yàllaa ak volcano kër gi neex xumbute dagan njaboot gi barkeel ñu door xibaar yi doore ko ci doomu Sénégal bi tudd du Mbacke Ibra Fall moom nag ma nga ca Barça be gone gi ab defenseur bu mën la muy def la weekend bi ñu weesu këlëbam dañ doon amal ab match waaye doomu Sénégal bi yeggali wut match boobee li ko waral moo di ab blessure ca sévi ba maanaam ca woq wala yëg métit def nañu sax ay test ngir doomu Sénégal bi waaye blessure am boobee nag dafa xaw a métti dina toog ayu bés yu bari maanaam ay semaines yu bari door mën a duggaat ci terrain doxal muy Mamadou Ibra Mbacke Fall nañu ko ñaanal nag balaa yàgg mu wér duggaat ci terrain yi di doxal ñu ci Mamadou Mbacke Ibra Fall te di ko ñaanal jël doomu Côte d'Ivoire bi tudd Sébastien Haller moom nag dafa am blessure xam ngeen ne Paris war naa jàkkaarloo ak Borussia Dortmund match aller boobee nag bu ñu sukkandikoo ci l'équipe doomu Côte d'Ivoire bii bokkam ca match boobee wóoragul ndax blessure bi mu am wéragul kon bokkam ca match boobee lu ñuy seetaat lay doon. ñu jugee ci Sébastien Haller ak waa Borussia Dortmund nag seenub xabaar bu naqari jël Ruben Amorim mi tàggat Sporting bu Portugal xam ngeen ne moom waa Liverpool dañu ko bëgg waaye nag moom ak waa Liverpool jubóoguñu ci kàddu ba léegi naam Liverpool. Liverpool bëgg na ko waaye ba léegi jubowuñu ci dara club bu ñu naan West nekk foofe ca Angleterre it bëgg nañu ko jamono jii sax waa West ñoo ngi càmbar ay mbiram bu baax jéem a xool nu ñu koy katimalee contrat bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano moom Ruben Amorim li Fabrizio Romano wax ci West sax CNN da koo dëggal nekk chaîne bu mag ci réewu Portugal nee na Ruben Amorim jóge na ci réewu Portugal dem ci réewu Angleterre ngir waxtaan ak waa ñu jéem a xool mom Amorim nu ñu koy xaatimalee contrat mu tàggat seenu club kon nag waa Liverpool boo moytuwul mën nañu ko ñàkk ndax CNN nee na Ruben Amorim tey jii dem na ci réewu Angleterre ngir waxtaan ak waa te image yi ngeen di gis maanaam nataal bi ngeen di gis bi mu bàyyeekoo ca Portugal la ngir dem ci réewu Angleterre xibaar boobu nag ñoo ngi ko nangoo ci CNN nekk chaîne bu mag foofee ci réewu Portugal. ñu jugee ci Ruben Amorim ak club bu Angleterre di ko bàyyi xel jël doomu Brésil bii di Thiago Silva moom nag bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano saison bii ñu nekk bu jeexee day jógee ca Chelsea mercato bii ñu génn nag muy ci weeru janvier bii ñu génn am na club yu ko bëggoon defal ko offre yu baax waaye doomu Brésil bi moo gàntaloon nee na day jàppale waa Chelsea ba saison bi jeex ngir ñu mën a am saison bu baax waaye ndogal li moom jël na ko ba noppi bu saison bi jeexee day jógee Chelsea dem fu ko neex xaatim fa contrat gratuit loolee Fabrizio Romano nee na balaa yàgg moom mii di Thiago Silva dina ko siiwal ak waa Chelsea ñu juge ci cago Silva ak i bëgg-bëggam jël doomu itali bi tuddu Spinazzola moom nag ma ngay football ca AS Roma bu ñu sukkandikoo ci Tuttosport waa Juve dañu ko bëgg te ñoo koy nax ngir saison bi ñu nekk bu jeexee mu juge ca AS Roma gratuite dem xaatim contrat ci seenu club moom nag laata De di ñëw foofee ca AS Roma ñëpp li ñu jàppoon moo di saison bi bu jeexee dina fa jugee waaye jamono ji nag mbir mi soppeeku soppeeku na ndax moom mi di Spinazzola mi ngi football di amal ay match yu baax ànd ak AS di am ndam yu ama am solo waaye moom nag moo yor ci gulguyam su fekkee noppi na ngir bu saison bi jeexee mu yokk contraam ca AS toog fa doxal waa AS Roma noppi nañu ngir yokk contraam waaye su noppiwul ngir yokku ko tamit noppi nañu ngir bàyyi ko mu dem fu ko neex waaye Tuttosport nee na waa Juve ñoo ngi ci wet gi di xerewlu li ñu bëgg moo di xaatimal ko contrat gratuit moom Spinazzola ñu jógee ci Spinazzola ak bëgg-bëgg boobe waa Juve am ci moom dem ca waa Inter bu Inzaghi ñoom nag ngoonu tey jii amal nañu jaloore nekk nañu champion foofee ci Italie naam championnat bi jeexagut waaye ndam lu am solo li ñu am tey jii ci kaw AC Milan tax na nekk nañu champion ci saison 2023 2024 mu nekk seen ñaar fukkeelu yoon maanaam vingtième fois ñu koy jël ñoom waa Inter ñaari bal ci benn la ñu gagné AC Milan tax na dégg nañu daali maanaam maanaam nekk nañu champion foofee ci réewu Italie waaye saison bii ñu nekk nag waa Inter dañoo mën lool club yi nga xam ne ñoo nekk foofe ci Serie A ba ndax bu ñu xoolee li ñu dugal ci ay bit bari na lool mair attaque bi ñoo ko jël meilleur défense it ñoo ko jël li ñu dugal ci ay bit mi ngi toll ci soixante dix neuf bit li ñu leen dugal maanaam li ñu encaissé dix huit bit képp ci la toll meilleur buteur bi tamit seenu club lay football muy Lautaro Martinez te jamono jii ñoo ngi toll ci trente troisième maanaam fanweer ak ñetteelu bëccëg am nañu ca vingt sept victoire cinq match nul ak benn défaite képp jaloore joojee nag ñu amal ci saison bi moo tax ñu teel a jël championnat bi ñu naan ko scudetto ñu jugee ci waa Inter ak jaloore ji ñu amal dem ca waa Barcelone ñoom nag ki leen di tàggat di Xavi ndogal li mu jëloon moo di saison bi ñu nekk bu jeexee day jugee foofee ca Barcelone tey jii ci sunu xibaar yi njëkk ñoo ngi leen di wax ne dinañu amal ab réunion ca Barcelone googee Xavi jël ndogal ci ëllëgëm day toog ca Barcelone wéyal di leen tàggat am daf fay jugee comme ni mu ko waxee woon Matteo Moretto nee na réunion boobee nag incha allah dinañu ko amal mercredi muy àllarba ci la lépp di leeree nag Xavi day toog ca Barcelone continuer di leen tàggat am day juge ca Barcelone Matteo Moretto nee na àllarba di mercredi incha allah dinañu ca am leer nañ ñu jugee ci Xavi tey xaar ndogal li mu jël incha allah waaye Barcelone googe duñu ko génn gum bu ñu sukkandikoo ci Mundo Deportivo njiitu club boobee di Barcelone woo nañu seen capitaine bi tudd Sergi Roberto moom nag bëgg-bëgg bi mu amoon moo di jugee ci club ba waaye njiitu club bi woo nañu ko ne ko yow sa taxawaay dafa am solo lool ci club bi am nga fulla te li ngay def kat jàmbaar nga ci li ñu bëggoon nag moo di nga yokk beneen at toog ci club bi jàppale ñu waaye bu yokk contrat nag du ñu yokk salaire bi ñu koy fay la ca nekkoon moo cay nekk waaye day yokk beneen at rek